asalaamaaleykum monsieur le président maa ngi lay nuyu monsieur les ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateurs yi ak seen collaboratrices di nuyu sama collègue député yi monsieur le ministre jàpp naa ne su résultat amee résultat booba nun opposition bi am nañ ci wàll ndax président bi mu wootee opposition bi yëpp ko wuy ji woon jàppale ko ci Covid bi ñu indi fii loi d'habilitation ñu voté ko à l'unanimité ñu jël 64 milliards jagleel la ko dinaa ci ñëw yemuñu foofu sunu candidat Karim joxe na 5000 kits ñu indil la ko loolu ak njàppadi la ñu jël 64 milliards 400 jagleel la te gis nañu ne bi nga ñëwee yow da nga wax ne jëfandikoo nga lu toll ci plus de 93 milliards. plus de 93 milliards loolu du chiffre de ndax ci ginnaaw 93 milliards mun nga ne 100 milliards mun nga ne milliards ndax plus rek nga wax plus de 93 milliards lu ko kon ñu gis ne monsieur le ministre mbir mi leerul war nga noo leeral nag ba ñu xam ñu gis ne yi tamit monsieur le ministre fan yi tiit nañu ndax gis nañu feebar bi mi ngi yéeg ca dama jàpp ne dañu war a fagaru bala ñuy amaat deuxième vague ndax boo xoolee le 27 septembre am nañ 40 cas le 28 septembre am nañu 46 cas le 29 am nañu 48 cas dont 26 yi nekk ay cas communautaire ñu jàpp ne gis nga ni chiffres yi di yéegee loolu nag dafay wane ne mbas mi mi ngi fi ñaareelu màndarga bi wane ne mbas mi mi ngi fi mooy yéen bu ngeen yéen ñi nga xam ne yéen a am information ndax jox ngeen ñu dëgg-dëgg maanaam sifur yu baax ndax dinaa ci ñëw ndax boo xoolee ñi ngeen àndal ñëpp ñëpp a takk masque yéen waa santé xoolal sama mbokk député yi ñu bari takkuñu masque parce que jàpp nañu ne siwur yi ngeen leen jox ci la ñu basé ba tax ñoom ñu jàpp ne mbir mi jeex na waaye yéen ñi am information bi dëgg-dëgg ku leen xool xam ne ku leen xool rek xam ne feebar bi mu ngi si kon chiffres yi ngeen ñu jox jàpp naa ni chiffres yi baaxul ma jàpp ne war ngeen a continuer di communiquer ndax communiquer bi communiquer des na aussi di la laajit fan la vaccin bi toll ndax comme am na réew yu ne comme Amérique ak Allemagne nee nañ am nañ vaccin bi jàpp naa bëgg na ma xam Sénégal ndax def na demande de vaccin wala deful pour jéem am vaccin bi monsieur le ministre faneen fi may ñëwaat mooy xamal la ne la avortement médicalisé moom Sénégal duñ ko mas a nangu mu am fi donte yéen a ngi waxtaan ci seen protocole de Maputo la la valable ca Mozambique mënu la ci Sénégal parce que Sénégal réew la boo xamante ne jàpp naa loolu du fi mas a am monsieur le ministre ma ñëw nag ci hôpitalu Touba ndax yéen yéen a waxoon ne janvier 2021 hôpital boobu dana pare te gis nañu ne hôpital ba la des bari na lool kon monsieur le ministre war nga gën a doxaat ndax gis nañu ne am na jafe-jafe jafe-jafe yéen nag ma nga tàmbalee woon ca commencement ndax commencement bi nga demee jël ay nit jox leen ko benn tuwaab jiite ko bu tudd Olivier Picard ngeen génnee 16 milliards jox ko mu xëy dem yoonam mu mujjul fenn booba la essayé yo commencé woon loolee nag moo continuer ba léegi topp leen ndax gis naa ne yi mu àndandoon lu mel ne hôpital de Sédhiou hôpital euh, Kaffrine yooyu yëpp jàpp naa ne bu ñu përeewul it ñoom raw nañu hôpitalu Touba ndax hôpitalu Touba ba léegi ci di tabax ak yooyu lañ toll ay premier étage lañ toll